أعوذ بالله بسم الله وما التوفيق إلا بالله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برمتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يلين مني كان نكون سنتو أكسن سنت ألسان فاي لأن شعر وات باخ باخ باخ دني واري يوم يبقي تمن تني أنا سن من تخايا لا يأكل كفل أول تما عندك غير دني أنا جام كيري مي دي كون يانو بروم ريمي تمن ده ku nekk ci gaal la nga war a ñaan mooy borom gaal ga mucc saa yi borom gaal ga muccee rek ñëpp mucc kon nag ñu ngi ñaanal borom réew mi ji Macky Sall suñu borom doli ko kàttan doli ko tawfeex ba may ko xol bu yaatu tamit ak xéewal yaatu may ko xolu muñ tamit bu wér wér xol bu yaatu mën a dimbal askan mën a yërëm askan wi waaye xolu muñ tamit mën a muñal askan wi ci yu bare bari ñaanal ko yalla itam nattu bi wacc ci kawam xam di wacc ci rew mi ñene ci kawam la wacc di febar bi wacc ci rew mi ñi ci ciy ab taxawayam bu baax ak ministre abdou Diouf sar di ñaanal suñu borom nak ci katanam ak mbaaxam di tuubal suñu borom ñun ñepp yi tamit di ñaan suñu borom ak mbaaxam mu jël fi tawat ji di coronavirus ci lu gaaw gaaw ta ni ko Cheikh Mamadou mu Muntaxa waxe li ci ëpp rek ñun la ñoo tooñ ñoo tooñ yàlla waaw ñoo tooñ suñu mooy yàlla ak suñu tooñante suñu biir kon ñu ngi ñun ñëpp rek ñu maase ci tuubal yàlla suñu borom baalante ak ci suñu biir te delluwaat ci yàlla te xam ne da Serigne Touba suñu yaakaar ci Serigne Saliou Mbacké waxoon rek yàlla de ku ko fàtte yërmande ma tax comme jublu nga fàttaliku ko doo zootal lu moom yaakaar naa jamono ji wala na ci misaal bu mat sëkk fa tabaarakallah ndax kim yabal ngir mu fàttali ñu jëmmam ngir ñëpp di delluwaat ci yàlla yalla digalul nañu ñuy raxasu ndax wax na ko ci alquran de leen raxas seeni loxo ak seeni kanam yaa ngi dégg loolu mooy jàpp nga xam digal nañ ñu japp juroom yoon ci waxtu wi ci ci ci ci ci ci ci ci ci vingt heures yi ta lolu ci set la bok anna shafatu min al yi set ci jaamu yalla bok waye ñun ñu bari dañu bañoon wa digaloon nañu tamit manam ñu mandu japp suñu bopp ci li suñu yoon nekkul tey toog suñuy kër buñ liggéeyul ñu bari ci ñun dañ ko bañoon digaloon nañu tamit ñu moytu jaxasoo bu amul njariñ te ñu bari ci ñun dañoo bañ dañoo lànkoon loolu digaloon nañu tamit góor ak jigéen bañ a joxante loxo ñun ñi ñëpp dañoo lànk ñu bari dañoo lànk di joxante loxo góor ak jigéen waaye nag mu yabal fi benn waay boo xam ne ne ku bët mënta gis la muy coronavirus mu yobal ko fi mu tere ñu yooyu yëpp nag ñu massa nangul ko corona corona wax nañu ne dé lañ tak masque ñun ñëpp ñu tak masque ñu ci ëpp ci ñun ñi ngi tak masque corona wax nañu ne waxuma la goor ak jigen bu len doxante loxo sax waye yeen ñëpp faf bu len joxante te loxo ñu nangul ko ko nangul gu wér fi ne koo jox loxo mu bañ waaw corona yi tamit wax nañu ne saa yoo duggee sa kër na raxasu te nga te nga laal ci sel bi ñu nangul ko ko fuñ mën a jógee bu ñu ñëwee dañ dugg ci biir raxasu ak saabu laalaat sel bi doo ko toog duñ lekk mukk yi tamit te raxasuñ doonte kut la ñuy lekk itam da nga dem raxasuwaat kon nag da xam ne maanaam lanu yàlla déggaloon rek ñu ak dimbalante yi tamit yàlla déggaloon nañu ko ñun ñu bañ ñu bari ñu bañ ko waaye ñu bari tiit nañ fi ne nii def ko di ko def nga xam te ne ku nekk jàpp na ne maanaam mujj jamono lañ nekk tal effectivement ci lañ nekk waaw kon lu waay profité def ko ci lu baax rek maanaam yàq nga ko kon nag ñu ngi sant ñi nga xam ne yàlla may na leen tawféex eh, ñuy bàyyi xel yàlla waxtu wu nekk di dimbale askan wi waxtu wu nekk loolu nag dañ ci beral loxo particulièrement eh, ajaaf eh, aji mbaaw mbàcc borom dëkk bi di Abdoul Aziz Gueye chef du village ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a te diko sant mom tamit njambaram ak taxawayam ci askan mom moom tamit fa tabarakallah waaye di sant imam bi imam Cheikh Diop ak imam yi nek ci dekk bi yëpp fa tabarakallah ndax ñi ngi def ay ñaan ñi ngi sensibilité doom adamay ngir ñu wat ci set bu baax baax waye di sant président foyer des sen Abdou Karim Figo mom tamit gis nañ ni mi rassembler jeunes yi ak euh, social bi mi def ci sen yi waaye di doon di ko gën a sant yi tamit ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy nday dëkk bi yëpp di honorable député maire Ndiagne Diop nga xam ne ñoom ñëpp ci am lañu nekk mu génne xéwal yi takk moom tamit def ko ci askan wi def ko ci lii te moment bii tamit ku jëfal askan wi ni ma wax léegi ci mbàcc ku jëfal askan wi dama jàpp ne ñun ñu fi toogal Serigne Touba di deret Serigne Touba ñun nga ko defal ndax dañuy jàpp ne Serigne Touba ci boppam maanaam dafa ñëw ngir askan wi ngir dimbali askan wi lépp waaxir naa yaa rabbanaa bi xidma lil muslimina abadan wa ma waaye xoon ca géej gi ne icaxar ak jooxi ilaa xaw mi boobu waxut sax jullit ñi waxut Sénégal ga ma jëm nation ba ma jëm sama dellu ci réew mi ne seenu taxe icaxar ak jooxi ilaa xaw mi chanaltana wala tag fi naa yom jam laq nii naar kon nag mboolem koo xam si ni yaa ngi jël sa xiwal da ko dala ci président tàmmulee ko ci Sëñ Muntaxa xalif général mu Mouride nga xam ne moo njëkk a def acte boobu génne deux cent millions joxe ko kon ñun murid yëpp rek ñoo ko ñoo ko war roy ci loolu ba noppi di yàq ay ndawi teraanga di ko yóbbu ñi nga xam ne eh, natt bi da leen dal ci hôpital ba waxtu wu ne mu di ko def te bëggul ko ko wax di ko def ci Touba gam nekk kon dafa wan ne maanaam nekkal gi mu fi nekkal suñu Touba askan yëpp moo leen njaboot Sénégal gi yëpp moo leen njaboot l'islam gi yëpp moo leen njaboot loolu lay wane kon ñun ñun ñi nga xam ne dañuy ay sët suñ tubaay tamit masala nekk ay ambassadeur fañ nekk ndax sët suñ tubaa pour nekk rek boo nekkoon ci nekk sax ambassadeur suñ tubaa bi boo xam da ngaa war a wanne tawféex sëriñ bi ak mbaaxu sëriñ bi ak njàmbaaru sëriñ bi kon nag ku koy def dina ci wut yow yaa ko war sant di lancer message nag ci askan yëpp nañu maase ci li nga xam ne moom lañu suñu borom sant ci jamono yu mel nii bu ñëwee muy tuub dellu ci yàlla jàng alxuraan jàng xasida def salatu ala nabi def istighfar fonk waxtu juróom waajal koor gi di ñëw tamit inshallah ak agsi na ba noppi bi su topat moy li nga xamne keur docteur santana nañ ko nga xam sababu sabab dafa am sababu bi am keur docteur li santana moy li fi ajma mbaabu màcc indi mooy raxasu ak sabu wala ak ordre sewel ak di di di tak masque yi di laal sel bi bu baax a baax takko baax takkoo ak moom te itam ci kër yi tok ci kër yi ku munta ñak genn ci luddul farata nga genn dox farata tak masque boy genn ndax war nga sauver sa bop sauver say njabot yi sew yi nga bàyyi ci kër gi sauver askan wi nga dajal ndax febar la bo xam ci niñ ko waxe nit mën nako am 14 jours ta manifester nit mën nako am sax ba mu wër ta do xam am nako waye nak nag ngay wër wala nga ko ay nit lolo waral ka communauté yi bari kon nañ tamonté ak jojo te tak masque yi eh, eh, di soriante di set def yëpp daal bu saayir bi mooy lool loolu bu baatin bi mooy lee yal nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar yëpp euh, te musul ñu ci jàngoro ji te yàlla buñ ko xam yàlla buñ ko am yàlla buñ xam ko ko am ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xul tax na waa naa alhamdulillahi rabbil alamin